man dama jàpp ne jot na nag bu nuy politique ñu dugal ci li ñu naan ay valeur ak ñu dugal ci éthique man dama jàpp ne politique du rek njuuj njaaj wax la génn ci du ma jiital suma mbokk bàyyi ki nga xam ne moo mérité du abus de confiance dama jàpp ne nag dañ cee war a boole aussi des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 31 janvier 2012 ñu ne ñun ñëpp place de l'Obélisque ci sunu kanam la fiire ba rey l'étudiant Mamadou Diop man ci son bopp maa doon directeur du cabinet de campagne du candidat Macky Sall man maa bind le conseil des droits humains de Genève waaw fukki at après tey ñu nekk ci 2022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 ay ngi fàttali ko ko dox ak suma kaw la euh, euh, Grand Yoff yi ku ne ñu ba sénégalais yi nangu constitution bi defe naa à 63 pour cent 2016 leer na bu baax ni ko le professeur de droit constitutionnel monsieur le garde des Sceaux ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax ko ci vidéo boo xam ne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 parce que ni ma ko waxee troisième mandat est juridiquement et moralement impossible bu ko defee liggéey bi nga xam ne nag jot na koo liggéey waaw ki nga xam ne Sénégal yi tànnal nañ ko seen bopp librement ñoom ñu continuer liggéey woo